ay ci ñu dal jàmm jukki li ñu xëyandoo tey ci yéegeekaay yi maa ngi ci vox populi ak jàngoro coronavirus bi taga témbe lànk ne du jóge ci réew bu Sénégal vox populi ne loo ci mën di dégg jàppal ne démb ci réew bu Sénégal juróom-ñaar ci bakkan waddaat na yóbbu nag record cas grave yi ci juróom-benn fukk maanaam 60 cas grave téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent di ay cas yu yees démb loolee ñu am suq su aane defal ndànk sax loolee moo waral jamono ji këru docteur yi di bëgg guuf sonn dëgg tar dépassé wu étifé wu fatt lool ci wàllum nag ay woy wopp jamono ji nag wopp ji war na fee gaaw kon jóge wante day wopp jooju bokk na ci ñi ci daan dalal xel l'observateur yëglekaay groupe Futurs Médias bi xëy ci bëréelu yaatu ci nag tiitaange gi nga xam ne am na jamono ji ci xeetu nag jàngoro bii di coronavirus bi ci jamono bi nga xamante ni Abdoulaye Diouf Sarr docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye professeur Seydi docteur Bousso kenn gisu leen te naam dañ leen daan teg ay gët ngir ñuy joxe ay xibaar ci lu ñu mel loo ci mën di dégg mooy mel na ne dañoo rek daal di jël seenu dallu dallu kay mënagul am jamono ji feek rek jàngoro ji jugu fi critique yéen a kaay ma tension en réanimation façon jamono boobee de ñi ngi bëgg dem dem laabisine ci réanimation yi ma ne fi mu nekk nii loo ci mën a dégg mooy ñi ngi bëgg a tuskare waaye cas communautaire yi kenn demul ñu des ci critique yéen kaay Diourbel ak Touba de am nañ fanweer ci ay cas ñaar ci si ay bakkan daal nañ koy ñàkk Sénégal nag jamono boobe mi ngi négocier di nag fu xool yan ñaal la mën a def ba am ci vaccin yi ñaar téeméeri junni dose ñoo ngi koy waxaale ak waa Sinopharm vaccin yooyu sax Le Quotidien ne ko may ma ñëw déedéet weesu na sax lu nu mel ndax Covid bi ak quota bi Sénégal ma ngi kaa waxtaani loo ci mën di dégg mooy ak COVAX bi ñi ngi waajal nag benn lu tof ci ay millions yi vaccin millions yi dose millions yi dose ngir xew bu Sénégal ca jamono boobee nag ci quotidien yéen kaay ne Grande-Bretagne ñoom jébbale nañ li nga xam te moom di rek AstraZeneca Le Soleil yéen kaay yëgle kaay nguur gi ne de jamono boobee ma ne de président Macky Sall Emmanuel Macron Angela Merkel Antonio Guterres ak Charles Michel ña fexe nag ni ñu ameb toogaan ngir nag woote ak jàppalante ci àdduna wër nga këpp bi ëlëm leen seen i mi ngi ne fang ci yëgle kaay gi nguur gi ku nekk xam ne ne assemblée nationale mënoo ko cee génn bokk na ci seen saytu ci wàllum yorinu mbas mi wante l'évidence sénégalais jox kàddu kii di Aji Mergane Kanouté ne déet tey leen nit ñaa ngi ngar dajjoo ak dànkaafu assemblée nationale ci taxawaayam ci mbas mi demewul noonu de dafa fekk ne assemblée nationale liggéeyam bi yëpp def na ko ba jébbal nag nañ doon saytoo force covid 19 bi wante day mbir yaa nga ca loxo corps de contrôle yi ak nguur gi kon ñoom seen ŋaññi lañ ca waroon a def kay di amu ci lenn lu gàllu goose nguur gi ak njiitam la Sénégal fësal nataalu président Macky Sall saalingaara lamtoor burgédee kor Marème Faye ne ci fang dang day Macky menace de sévir saaga yi ak xaste yi ci am ci internet bi mu ne day kor Marème sa Fatick fas naa jëlu yetam ne dafa war a jeex takk nag ay tifaara ak wax ju ñaaw ju salte ci internet bi day foo war a jeex ci xew bu Sénégal waaw waaw tamit dëgg nag président waaw les écoles yi kaay ne moo taxi de président Macky Sall fi mu nekk ni dut na ci baaraam programme rajo yi ak télévision yi les écoles yi <laughs> yoo xam ne baax ci askan bu Sénégal ndax jamono ji jàppal ne yenn ci ay programme ñiy fësal ci tele yi ci rajo yi doxul ci yoonu yee askan bi ak jubbanti leen kon jot na ñu soppi seenu doxalin xool yoonu ñuy teg ngir nag askan bi mën a ginneeku 24 heures chrono ñu fekkaat ko foofu moom sa Fatick sa lingaar lam tawra bourgade ak meram ga futtu dëgmal ko ci wàllum programme yooyee waaye it sàkku ci gouvernement bi mu dooleel ñi nga xamante ñoo yëngu ci wàllu wi rawatina TNT ak lépp lu jëm ci wàllum yi accès ci décodeurs yi mu jàppandal ko lépp mën a yemb ba askan bi mën a jot ci lépp luy xibaar bu wér te ci dolli gën a mën a nag indi luy defar luy nasaka nocci bañ nag indi luy xaajale ko tasaare ñoom ñaar ñi ba ñu tasaaroo nag ku nekk jaar ca yoon mel na ñaari kuy yu munut bokk mbalkam maa ngi ci tribune yéen bi groupe des médias bi Maître Moussa Diop sol na ab robbam bu xonq coy ngir nag di xaar président Macky ne nag lu mu rek góob ma gar ko ne ay Macky Sall bés bi ko xelam mayee mu tëdd ci sama yoon na jàpp rek ne lu waa njóobeen raxasoo ko naan déet waaye maître ah kay ndax de jàppal ne lépp lu at ah kay lenn rek leen metti moom prison Macky Sall li ma tudd ñetteelu mandat te loolee tey laa ci gën a moo moom maître Moussa Diop jóge ci borom palais de la république àgg ci palais de justice àgg nag ci ñi nga xamante ni seen ngelaw mën nañ ne ak piir teng cay fës bokk na ci nag Aminata Lorjan mi nekkoon jëwriñ di ministre ak Boubacar Seye daan nañ leen di bàyyi ginnaaw seen janloog justice bi jamono ji nag am nañ seen affaire Boubacar Seye am liberté provisoire Aminata Lorjan ñu tëj ko ñaari yoo xamante ni du ko tëdd deux mois avec sursis weer xel dem ci salaire ak payor weer weeru dee ñu fay la la nga liggéey kër ga nga nekk Dakar Times xëy na ci ne mbas mi de indi na ca njeexantal gu bon baisse des revenus des travailleurs 2020 2021 la Covid 19 fait chuter les salaires daane na salaire ya de tey bii lay feebar yàlla na ko fi yàlla jege mu ñu toppee mbooro su bokkul ma la Covid ku xamoon say maam wala fa nga xeeta fa nga bokkoo ñu mën laa sunguf renda ngir nga abal ñu yaa ñu lakkal lii de laa wax baa li ngeen dégg ñu yenn ak jàmm